taxawal ko fi teewal ko ànd ak sama rakk yu baax yi mais lan moo tax délégation yu bëri ay jigéen. ah li tax jigéen ñi ñoo ko yor te Ndiaye mooy suñu avocat Ndiaye mooy avocat jigéen ñi ci mairie bi moo tax bi ñu waxee drapeau bi jigéen ñëpp dañoo takku te dëj si ak ak ceetal yi ñoo tax waaye bu nekkul loolu fii day fees del tey ak ak jigéen hmm. waaw. mais soxna si nuyu nañ. ñoo fay sëñ bi. ñëw teewal monsieur le maire Ipane Ndiaye ci drapeau bu mag bi mu mel ni tey da ngeen koo jigéen ñi. Ipane Ndiaye dañ ko yar nag ndax mooy avocat jigéen ñi moo tax moom def ni koo ñu teewal ko fii di ko gërëm waaw. macha allah teewaay bi ci Ipane Ndiaye daa mel ni jigéen ñi ren. macha allah mooy avocat jigéen bi rafetlu ko lool di ko ñaanal yàlla mooy yàlla na ko bésam di leen ñaanal yéen yëpp ñëw biram maa ngi gën a ci yow si mbiróo doy Mouhamed doom bég naa ci yow barkeel Mouhamed bég naa ci yow macha allah. sans pour autant tarder xam nga ne bu rafet bi mooy délégation monsieur le maire Ban bi bu doon drapeau boo xam ne dañ ko doon flairé di ko doon dund ci Ngoundiane maire ñu bëggoon a xam da nga ñëw tey représenté monsieur le maire Ipane Ndiaye c' est pas la première fois yaa ngi en direct ci rajo yu bëri. waaye ci télé yu bëri ah Leewtoo waaw euh, Birame dina sant yàlla rek wax dëgg fa yàlla di am mbégte ak contentement tey euh, représenté Ipane Ndiaye muy koo xamante ne yaakaar naa du gan ci Ngoundiane ku ne xam na ko kon wax dëgg fa yàlla bu ñu jëlee drapeau bi tuddee ko Ipane Ndiaye ah mu yónnee délégation bu am solo bi ah, ñu ànd ak suñu mag muy Mor Talla Ngom ak euh, adjointe au maire madame Binta Ngom ak ay. suñu yaay yu baax yi ak jigéenu Ngunjaan yaakaar naa loolu contentement la ah di rafetlu tamit jeetaay bi ni nga xamante ne moo ñu fi indi muy lit bi parce que lii biram daa bokk ci tradition séeréer parce que lutte simple yaakaar naa ne képp ku ko xam rek war ngaa xam ne lii mooy euh, powum góor lii mooy powum séeréer kon lii day dundal euh, cosaan parce que wax ku wax cosaanu séeréer rek doo ci génne bëre kon tey bu ñu invité fii tuddee ñu drapeau Ipane Ndiaye bii nga xamante ne moom lañ fi teewal am nañ ci contentement bu baax a baax a baax a baax ndax waaw Moustakh Production wax dëgg fa la euh, liñ koy wax bariwul xanaa di ko ñaanal di ko encourager parce que c'est pas la première fois kon tey bu jógee Moustakh Production ne man yemuma Moustakh Production damaa jël toute la commune de Ngoundiane bés naa taseeg joobaas pour dundal culture nguñ culture séeréer yaakaar naa ne kon kooku ku ñu war a jàppale la ku ñu war a encourager la ku ñu war a ñaanal la di ko ñaanal aussi di ko encourager euh, bés bi nga xamante ne def na ko fii dina doon incha allah bu soobee suñu borom ay bés yu bëree bëree bëri yoo xamante ne arène nationale lañ koy tege a ah, ñun ñëpp ñu gis seen ñu bopp sénégalais yi gis seen bopp parce que li c'est le début du commencement du biram wax dëgg fa la sama xol moo moo fees am contentement ak mbégte xam naa nag euh, Ipane Ndiaye moom ah ku ko xam xam ko ak jigéen ñi lu mu def ci jigéen ñi def ko ci tund Ngoundiane moo tax drapeau Ipane Ndiaye waa Ngoundiane jóg surtout jigéen ñi nekk drapeau bi suñu drapeau la bàyyil ñu def ko suñu yëfu bopp kon yaakaar naa kaddu bi lu ci ëpp solo xëy na jigéen ñi nga xamante ne moom lañ taaral bés bi mooy drapeau bi ñoo ko ciy wax di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal sa mbokku journaliste yëpp di leen encouragé liggéey bi nga am solo bi ngeen di def parce que liggéeyum taskatu xibaar moom jaamu yàlla la mooy ki nga xamante da ngay xëy dem uti dépense dépense bi mooy lan dem chercher information jox ko population bi pour man cee jëriñu kon yaakaar naa ne yéen yéen a ngi ci terrain bi di utu dépense yaakaar naa dépense bi ngeen di jox seen auditeurs yi ak seen téléspectateurs yi buñ ko gisee dinañ ci kontaan di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla na jàmm yàgg yàlla na yàlla def tamit euh, journée bi tey réussir. Ah, euh, euh, kon nga xamante ne tamit moom la de suñu borom dogal mu jël ndam li tamit ñu koy ñaanal di encourager ñëpp di leen jaajëfal jërëjëf Biram kontaan naa bu baax. Mortala lépp. bi nga xam ne da sawar sawar a wax ci sport waaw Yipane Ndiaye euh, amul lenn ñu mën a wax ci moom lu dul sa mbaay di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi parce que Yipane ku ko xam ne sa mbaay xam ne nit ku yaatu la nit ku jàmm la ak bëgg na ngóora nit nag su bëggee ngóora. day neex a jàppale actuellement sa mbaay moom moo ñu yónni tey dafa am empêchement bu mag a mag a mag mais tey fii moom moo fi waroon teew mais actuellement moo tax na sa mu mu wax ne sa mbaay il faut ñu ñëw teewal ko fi waaw di ko sant bu baax a baax di ko sant bu baax a baax a baax di ñaanal nag monsieur le maire Mbaye Dione parce que li tax ñu ne il faut ñu ñaanal mbay Dione mooy stade bu mel nii parce que ci département bi soo ko fi gisee itam sa mbaay bëriwuñu te mënoon na jël xaay bi sa def ko ci mi ci feneen mais nag dafa ko dafa jël sama waay jeunesse bi sama waay jagleel ko ak on conseil yi nag parce que su ko bëggoon aussi te conseil yi nanguñu du sotti moo tax ñuy naa ñaanal ñëpp waaw. loo wax ci production. ci kanam ci kanam ci kanam parce que yàlla na leen yàlla jàppale li tax ma wax ko sama waay ñooy tëgg nañ fi làmb mu réussir te amul benn problème suñ ko tëggaatee aussi yàlla dina leen ci jàppale ñoom li ma leen di mooy ñu gën a góorgóorlu gën a góorgóorlu jàppalante. Bessa Mboye lii doon du doon benn première fois bi du doon deuxième fois bi nañ ko def ay ay ay ay lamb yu bëree bëri bëri mën nañ fi organiser leneen lu dul lamb sax waaw yàlla jàppale leen bu baax a baax incha allah ok merci. kon mbokk ñuy suivre amateur national. tuddee le drapeau. man ne la Omar da ngaa jublu ñii ne ci biti. Ah. am na liy <laughs> Amar ñi ca biti yaram daw na yaram daw na ah? yaram daw na. mais sëñ man Cheikh Tine. Cheikh Tine. Toubacouta waa. waaw Umar daf ma jiw ngor quoi daf ma jiw ngor moo tax. ah bon ma teg sama lépp ma ñëw ci moom. ah waaw li ma ko doon ñaan yàlla def na ko. Hmm. waaw dafa am lu ma doon ñaan ci moom yàlla def ko. Hmm. waaw moo tax xam na man xam naa. Amar incha bi rëy na. yéen bi diis na. nga di xale ñu bëri yaakaar la. foo tourné ñu ne ñu dégg Omar hen tuddale Amar taa tudd la waaw tànn bi tànn bi mu nga fale mu ngi ci àll bi mu ngi ci àll bi ñu bàyyi. waaw ah, dama dama dégg ne daa dégg say wax da koy woo wala noo koy woowe ñun loolu moom waaw. noo koy woowe <laughs> loolu. loolu secret la rek. secret ah, nit ki nee doo maanaam daa am loo xamante ne. boo bu ko bu daal. c'est bi kenn du ko partagé. waaw. Uh-huh. waa dégg naa Omar dafa am ñaari càngat bi ci biir dëkk bi ak bi ci biti. waaw. ñaar bokkuñu. ñun daal boo ci gis daal bokkul ak moroomam waaw. dégg naa Omar daa am xaritu jinne. waaw. <laughs> jinne bi bu góor la bu jigéen. bari nañ daal. jigéen yi ay ay xale lañu jinne yi ay xale lañu wala ay mag non Omar ñu ne journaliste lañ lay laaj te il faut nga wax ñun daal yor nañ daal yor nañ daal yor nañ cosaan xar baa bu baax bàyyiwuñu dara it te ku ñëw te ku ñëw it gis ku ñëw nga gis weddi daal bokk gis bokk ci kon mbokk yi yéen a ko déggandoo Omar Dieng ngi nii danañ defat moom ak yeneen i émission parce que euh, télé yu mag yi ñu tiim xam nañu ne ñun nekkuñu fi lu dul promouvoir le jeune waaye promouvoir Ngoundiane ak li ko wër Ngoundiane na dox waaye ci ban côté kenn ku ne fa nga mëne omara a ngay def fa mu mëne Ousmane production di def fa mu mëne yéen journaliste yi yéen a ngi def fi ngeen mëne kon ca kaw ca kanam mais Omar bàyyeeguñu la dana ñëwaat ci yow ndax tey dafa am face à face Mayakor Sarr Cheikh Niang Fodé Sarr Gora Sock ci sa drapo benn xale bu ndaw tëgg ko muy Ousseynou Ousmane production sa yaram daw <laughs> waaw suñu nag ñun nag dañoo déggul olof loolay problème séeréer parce que ñi ñuy seetaan am na ñoo xam ne ay séeréer lañu. waaw ino i kontaan a paax no andoona yee te ref o yaal oxe wole gee fi'na fi'a fi' ge andoona tik maak a ref i sante'na roog it i sante'oxe ke andoona yee a a ɗeg fopum a gar yaam o sag'in gi ñoowna a anda andaam roog o yaal a anda yaam a yoon olu ga'oona roog fo xaye i refo kama Ngunjaan i refo xa teɓandong i garo no moyen no 20 ilu po tale mba o, o mano ndeɓo mbomboyo ndeɓ talem gaga jigue way nana i ñoowo i ñoowa i refanu tig in i sano lool way nana i sano te mi i bugna fado xaye no ngunjaan ngunjaan xana ge'o xana ge'o a paax a ndeɓandong i ndef oye ke ata damtel yaam o garna ɓis geege kama ngunjaan kooroxe a warel damit mi geeke taxim laya kam miñol o lattata ref ndokis tege a ɓisaan me kam miñ oxe leeraan kam o ɗega sum kaɗa Toubacouta yoona fo fuuda njom ge kam bugin yaam o seerel ge ta jik nana dara de ware ñif oxe naak i ndat ge paamal dade angi an kay a siqa fo o kiin goor to o kiin o gu rawnoona rek ki xeɗa roog raf dongo o ten Ousseynou lu tax nga tuddee ko drapeau eh, kii dafa eh, xale boo xamante ne biir Ngoundiane ku mel ni moom yombul wax dëgg yàlla vraiment muy nit ku baax suñu xamante yàggul damay bi ma commencé jëflanteeg moom yokkute rek laa ci gis di nuyu waa Samir yëpp wax dëgg yàlla kii yàlla laa koy bàyyee lamb su su su su melee nii loxoom gënu ci walaay loxoom man lu lépp daal mënuñu ko wax. dama man li ma jeexal dañoo ne saltige baa ngi ñëw ñii ne fajkat baa ngi ñëw buñ ba fees del ak ay nit oh, daa daam lu mu la jox xanaa li ñu gisul. kii nitu yàlla la nitu yàlla la su ma waxee nitu yàlla rek jeexal na lépp yàlla ku yàlla may la ñun waa Ngunjaan nañ ko bàyyee xel. mbokk yi bu yoon jeexulee waa Xusin yi jeex kii nitu yàlla la ci kanam dañ koy xam nañu dem seetaani combat ya Mbousnakh production ci kaw ca kanam ci lu baax ay ca gaay ba ci kanam mbokk ñuy suivre ci phénomène TV ak Leewtoo waaye tam ci salaam TV tey dañoo amal beneen drapeau Mbousnakh production génn beneen xar kanam muy lan jël un jeune qui a osé faire face à tous les obstacles qui devant lui muy lan tey bu ñu doon wax ay saltige dañu ko daan dégg bu ñu doon wax ay ñoo xam ne. ay maaman lañu dañu ko daan dégg ñu naan baab diw mënoon na nangam waaye tey un jeune Omar Dieng le bien nommé xool leen mbaxana ba ci suuf mbokki Leewtoo TV ñuy suivre ñi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi xale bi mu ngi nii kii mooy Omar Dieng borom tengaade bi danañ ci ñëw mais gis nga Ousseynou ku def lu rëy am lu rëy Omar loo wax ñu ngi sant yàlla bu baax sant yàlla rek sant rek ci bés bi waaw di delloo njukkal quoi coow jibul dina baax <laughs> ñu ngi sargal xale yëpp billaay walaay dina baax incha allah. Omar doon ci yow. non Omar sama frère la sama lépp la man Toubacouta laa jóge pour waaw ma bay sama lépp ma ñëw ci waaw xam naa nu mu demee dina baax incha allah. Omar nga fas yéene def tey ndax am nga yéene génn ay kéemtaan. <laughs> waaw incha allah incha allah daal ñun daal ñu nii rek. bu ñu nee saltige rek suñu xel day dem ci loo xam ne ay kéemtaan lay doon. ay sëriñ lañ ndax lii dañ koo doon waaw saltige moom daa bëgg a leeral gars yi saltige ak maara bokkul ñun dañoo nekk maara yoo xamante ne dañuy nekk ci ginnaaw gars yi rek waaw incha allah ñun moom ay sëriñ lañ dañuy ñaan rek nit ki moom li nga doon am nga ci droit nekk ci rek. mais dañu ma ne Mara bii yow mii di Mara am nañoo ñoo jubool te bokkuñu ci nit ñi dañ leen di fekk ci àll ba sax di leen woo di waxtaan ak ñoom. <laughs> waaw loolu moom loolu moom mooy loolu waaw sama diggante ak ñoom la rek waaw ndax dañoo baaxoo leen nit ki lu ñu mënta sax ak yow rek dañ koy sax ak borom rek. waaw borom laaf di naaw te boo ko mu ñëw. <laughs>